gan gi abu Diallo chargé organisation bu COS M23 bokk itam ci euh, Revo Cap euh, Abou ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen delloo nuyu di leen ziar ci altine bi. Mm-hmm. jërëjëf ñu am dalal ci matinalu Rewmi FM tey alors Abou ñu tàmbalee lan moo dox euh, wala lan moo lënkalee COS M23 ak Revo di réseau des volontaires communautaires en appui au personnel de santé. waaw nga jégal ñu balaa ñuy dugg ci question bi. tey mu nekk benn bés boo xam ni ci wàllu presse bi aussi ak ci wàllu Revocap aussi tamit dafa nekk bës boo xam ni daf ci am gu mag bu ñuy wax Babacar Touré nekk le per fondateur bu Sud FM ak groupe ak ISIC école ak groupe Sud Quotidien yàlla dogaloon mu génn ci àdduna bokkoon aussi ci cofondateur yi ak membre commission scientifique Revocap yi nekkoon aussi benn père spirituel ci man en di bokkoon ci ñu ñu doon conseil ak ñu doon ñu koy ñaanal yàlla e fa suuf si kawam te lim fi teg ci yàlla mottali ko nekkoon aussi ki doon jiite CNRA avant Babacar Diagne. Mhm. donc pour revenir ci sa question. Euh, mooy COS M23 moo jur réwokap parce que COS M23 comme ni mu ko yàgg di defee rek sur les questions de la citoyenneté active ak sur les questions droits humains. donc lépp loo xam ne dafa xew ci Sénégal ñu koy xeex loo xam ne injustice ak justice problème justice sociale bi ñu demee nag ba feebar bi ñëw pandémie bi ñëw mu nekk question vie ak mort sénégalais yëpp jaaxle jaxasoo nit ñi xamatuñu fu ñu jëm feebar bi di dem gouvernement bi di communiquer population bi citoyen yi dégluwuñ ko donc feebar bi commencé dugg commencé di propager wu cas communautaire yi commencé yokk si le président Abdourahmane Sow bu ko si M23 ne ni ñu ko defee woon si wàllum droits humains yeeg pétition Khalifa Sall yeeg injustice sociale yeeg mines yeeg pétrole yi ñu jublu ci li nga xam ne effort de guerre la laaj ñu dem jàppale ji état bi ak personnel sanitaire bi si la ñu dem def rencontre ak le professeur Moussa Seydi mi nga xam ne mooy le coordonnateur national prise en charge médicale bi hmm. donc euh, bi ñu demee seeti ko moom mu wax ñu que ni fi xeex bi toll Euh, le combat communautaire moom moom moom la ñu gën a soxla que que que prise en charge médicale bi parce que bu ñu yegsee ci ñoom rek fekk échec nañu si la ñu nag daal di jóg nag dugg ci terrain bi à partir d'une vidéo boo xam ni moom lañ leen demande les scientifiques le professeur Moussa Seydi def vidéo bi xamal nit ñi sénégalais yi que ni ñoom médecins yi ñoom ñoo joxe euh, ñu demande à ñu solidaire ak ñoom respecter mesures barrières barrières yi di moytu balaa di gën a propagé wu vidéo bi wër àdduna te fekkoon na politiciens yi tamit ak gouvernance sanitaire moon di wax luñ dul def tam mi lu ñu woon dëgg moo tax finalement bi vidéo bu génnee ñi ñu am confiance beaucoup de sénégalais ont adhéré ci vidéo bi wóolu professeur Seydi ci la ñu dajale nag kuréel gi def ko plateforme multi acteur dajale ci toutes les sommités dajalee ci borom xam-xam yeeg borom expérience yi commencé ci liggéey nag ci sensibilisation communautaire. Hmm. alors euh, tey euh, lan ngeen euh, jàpp Abou ni stratégie ba di ko doxal ci ñetteelu vague bi nga xam ne mi ngi dal bu baax a baax ci kaw Sénégal bakkan yu bari di rot malaat yi itam saay yu nu xëyee mu gën a yokk non stratégie bi ñu doxal en premier lieu mooy delluwaat ci communication bi mm. mooy jël suñu outil de communication yëpp delluwaat commencé di di sensibiliser nit ñi à partir des informations yi nga xam ne am nañ ko ci variant parce que dañu fekk ci combat bi parce que ñun yàlla dafa dogal depuis quinze depuis mars mm. bi ñu lancé affaire bi ba tey ñun arrêté wuñu ñun dañu accompagner Covid bi ba ci vaccination yi bi ñu demee ba nga xam ne ni vaccination bi gis nañu ne ni couvrir guñu vaccinat egguñu ci immunité collective bi parce que il nous faut soixante dix pour cent si la ñu ne vingt trois juin bi c'est une bonne occasion nañu dajale toutes les sénégalais ñu waxaat ci thème bi sur la remobilisation citoyenne def panel woo acteurs yëpp yi nga xam ne ñoom lañu daan liggéeyandoo invité le professeur Moussa Seydi invité Xarjata Mbay Diallo mi nga xam ne moo doon coordonné euh, CTE yi nekkoon foofu invité ñoom professeur euh, Fatma Tali mi nga xam ne ñoom dañu am kuréel gu tudd mbas mi ay anciens yu Covid bi daloon donc ñu dajale leen sur place avec les profs Amadou Tidiane Wane acteur yi nga xam ancien ministre culture ñu waxtaan foofu bi ñu waxtaanee si lañ porté ay plaidoyer pour wax état bi na dem jublu ci vaccin yi na defaraat stratégie de communication na mettre en place commission scientifique bi parce que fi ñu jëm troisième vague bi dugg nañ ci ba pare mais dégluwuñu te ce même vingt trois exemple la ci woon parce que ñun moment bi ñu wootee loolu nguur gi ñoom ñu ngi doon woote place de l'obélisque ci euh, anniversaire vingt trois juin opposition bi di woote M2 2D euh, ñuy xool ñoom ñaar kan moo ci ëppale mbooloo tombeeg président de la République jógee tournée politique moment boobu ñu fekk nañu ñu ngi ñaax nguur gi donc cela veut dire que ñun démarré woon nañ stratégie de communication bi pour remobiliser waat les citoyens pour ñu delluwaat ci loolu nag la ñu tàmbaliwaat mais fi situation bi toll nii mënuñu ko def ñun rek faw gouvernance sanitaire bi ñi ñu jiital ñu wax leen ni ñu wax ak sénégalais yi la vérité parce que dëgg dafa manqué ci xeex bi te ni ko Serigne Mbaye Sy Mansour waxee woon ba tey foofu la ñu toll mooy il faut que ñu wax nit ñi dëgg parce que variant bii ñuy continuer di xeex am na beneen variant variant bu nekk à côté muy variant politique politicienne de la gestion sanitaire de la gouvernance sanitaire bi nekk biir ministère donc il faut que ñu régler problème boobu et que le président de la République aussi jël ses responsabilités mettre en place ce comité scientifique ba pare inviter tous les Sénégalais par un conseil présidentiel boo xam ne moom moo koy présider parce que pandémie c'est une affaire nationale nekkatu épidémie il faut que mobiliser waa toutes les ministères concernés et tous les secteurs concernés jël demander secours à tout les chefs religieux parce que ñëpp xam nañ ni au Sénégal le rôle qu'avait joué Serigne euh, Khalife général des Mourides ci màggal gi ci prévention ak rôle bi Serigne Mbaye Sy Mansour continuer di jouer ak bi église bi di continuer di jouer ñu boole leen sur la table ñu waxante dëgg ñu wax opposition bi dëgg wax acteurs culturels yi dëgg wax ñëpp dëgg wax leen ni si situation bi toll la responsabilité est parce que feebar bi mooy amaguñu vaccin yu doy te bu ñu continuer wul jël suñuy matuwaay dinañu faat benn par benn parce que variant bi kenn comprendre ko. Hmm. Euh, leen yéen lan ngeen jàpp ne tey moom la nguur gi di nëbb askan wi ba ngeen di wax waxi dëgg. waaw mais nguur gi pour l'instant fi may wax ak yow nii nii ministère de la santé dafa dafa dafa échec te nanguwul teg te nanguwul te te nanguwul teg leen ngay. fan la échec dafa échec ci lépp. sur toute la gouvernance parce que dès le dès l'instant que ministère de la santé am fi mu am CNG e, ñu bàyyi le président de la république mu dem def la tour def tournée politique xanaa boobu ministère de la santé nekkul woon ci wetam xanaa boobu ministère de la santé n'avait pas les informations que on n'avait pas vacciné les sénégalais il y pas assez de vaccins lan mooy rôle gouvernance sanitaire ana scientifique yi nekk foofu donc gis nañu ni nii soit président de la république gis ko mu neex ko mu noppi wala ministère de la santé mooy def lu ko neex parce que ñoom xamoon nañ ni peut-être que ni vaccin yi matul ñoom xamoon nañ ni benn moment que ni variant bi mu ngi def ay dégâts parce que ñoom ñoo ñu ëpp information commission scientifique bi gëj na taxaw gëj na liggéey commission GIE bi kañ lañ ko remobiliser waat gis nañu ci diggante bi benn guéguerre bu am au niveau du ministère de la santé entre le professeur Seydi bu ñu écarté écarté aussi Abdoulaye Bousso gis ñu sami municipal dooleem wàññeeku na ñu gis CTI yi ñu ibbi woon yëpp tëjaat na ñu gis même problème oxygène yi nga xam ne le professeur euh, Seydi avertir na ñoom au lieu ñu dem uti solution ñu génn taxaw di xuloo professeur Moussa Seydi ana ay politique ak ay ñoo xam ne dañ leen nommé ñuy xuloo ak ay scientifique yoo xam ne ni ñoom seen grade ça dépend de l'enseignement supérieur. Hmm. d'accord léegi léegi tey euh, ban gis-gis ngeen jàpp ni moom la askan wi am ci vaccin yi ndax ci début bi euh, gis nañu coow li nekkul nit ñi am ci jeexi jaaxa euh, tey mbas mi avancé ñu bari nii nit ñaa ngi daw di wutali vaccin yi mais est-ce sur le terrain loolu ngeen gis xam nga au début début bi bi mu amee ñu ne nañu vaccin bi mooy seul meilleur moyen de prévention mm. parce que Sénégal yàgg naa nekk pays vac pays dëkk boo xam ne dafa am ay épidémie yàgg nañu xeex ak ay épidémie di ko gañee ndax am dem nañu ba suñu institut Pasteur bokk na ci ñi nga xam ne ni ñoo créé fièvre jaune euh, vaccin bi mm. donc institut Pasteur nekk fi mais ni ñu doon communiquer ci santé bi yéen ñëpp gisoon ngeen le constat te dañu amoon problème communication gis ngeen le directeur de la prévention dernière minute lay doog dugg ci biir système bi parce que la gestion politique politicienne bi amoon donc gis nga bi ñu demee ba vaccin yegg si gis nga ni président communiqué au début c'était pas bien mais malgré tout ça ni ñu doon communiqué ak ni ñu doon waxee bu sénégalais yi accepté woon ñoom ñëpp jóg dem di vacciner wu du ñu am vaccin parce que à part ni ñu ne dem jënd nañ ko vaccin deux milliards yeneen vaccin yi ñu jotaat am yëpp nee nañu ay don la mais dañ état bi ci boppam dafa jëlul woon matuwaay ut ay vaccin doy parce que xam nga tey mobilisation de ressources bi mu ko ji bi mu leen jaral bi ñu waree génn def les tournées nationaux pour mobiliser seeni personnel politique bu leen ko jaraloon ñu def ko ay moyens bu leen ko jaraloon ñu xool certaines institutions wala yenn programme de prestige yeeg infrastructure de ñu jël xaalis boobu def ko ci santé parce que tey fu ñu jëm mooy économie moo nar a taxaw fu ñu jëm mooy diplomatie moo nar taxaw fu ñu jëm mooy dañ nar a tëjaat aéroport yi tëjaat lépp nga xam ne da ngay perte lépp loo xam ne nag bu ñëwee dafay tëj Sénégal tëj askan wi tëj le secteur nga jëloon xaalis nga def ko foofu moo gënoon prioritaire moo tax loolu yëpp bi mu amee gisoon nañ sénégalais yi vaccin bi mu amee defuñu ci ay communication on avait relâché dem nañ ba benn moment direction de la prévention sax daal ne dootul génnati ci télé yi di communiquer mooy communication amul woon stratégie de communication amul ba pare activistes yi ak société civile bi ak yenn opposants yu yu yu de mauvaise foi aussi avaient utilisé ces vaccins contre le pouvoir donc muy benn système boo xam ne ni ñun war nañ ci jàngataat bu ñu xewatee yu mel nii bu xewatee ñu dajale suñuy doole dajale suñuy xam-xam hmm. dajale suñuy solidarité ñu ñëpp ñu nekk benn donc loolu bi mu amee dem nañu nag ba troisième vague bi ñëwee tollatuñu ndax feebar bi am na dëgg la du dëgg mais fan lañ toll mooy suuf kii peu maintenant nag c'est l'occasion où le président de la République en tant que père de la nation moo am immunité à ce que reconnaître ni échec la santé am pour que mu équipe scientifique ba pare woote conseil présidentiel woote waat dialogue sanitaire parce que gis nga santé tollatul sax ci ci euh, dimension locale mais dimension internationale diplomatie sanitaire parce que tey ñii jàpp ni ni vacciné woon nañu ba jeexal mhm. euh, seen dëkk affaire bi reprendre at nañu comme ñëppay dox comme l'économie léegi maintenant mondialisation la wax mhm. képp ku jàpp ni ni tu couvert à santé ndax nga sa bopp même dans nos organisations a poser parce que pandémie bi bu fekkee dafa laal benn dëkk rek day laalaat beneen dëkk. Mhm. donc loolu il faut ñu toogaat waxtaan mu wootewaat benn waxtaan bu sincère mu talal loxo sénégalais yi ñu jàppale ko mu wax leen dëgg ñu wax leen dëkk ji parce que feebar bi mu ngi def ay ravage nit ñi ñu ngi seen biir kër yi génn àdduna ci feebar bi c'est parce que siwuñu c'est parce que xamuñu leen moo tax donc almeer yi boo fa demee ni ñuy suulee doy na waar et manière bi ñuy suulee sans service d'hygiène mu ngi gën a yokk affaire yi. Hmm. problème mu test au niveau de l'Institut de nañu ko dañ ko war amatul ci enterrement yi loolu nga bëgg a wax. non y' a trop d' enterrement maintenant. ok parce que service d'hygiène dafa war a jógaat croix rouge dafa war a jógaat pour te montrer que l' état du Sénégal les premiers recrutements yi mu waroon def tey. Mm. ci ay problèmes volontaires mu njëkkee woon ko ci hôpital yi. njëkkee woon ko ci croix rouge. njëkkee woon ko ci personnel sanitaire bi. moo gënoon mais loolu pour nga mën ko def day fekk un ministère boo xam ne ni du politicien. day nekk un ministère boo xam te ni dafay jublu ci wàllu santé parce que santé problème souveraineté nationale la moom éducation kenn waratu ko politiquer donc fi ñu jëm nag il faut que ñu teg lépp luy politique ci suuf muy élection il faut que ñu teg lépp ci suuf ñu reprendre notre santé en main tàllalaat loxo waxante waat suñu biir associé ci journaliste associé travail communautaire yi pour wax la ñun Revocap depuis que ñu créé wu un an deux ans l' état du Sénégal n'est jamais venu vers ni le ministère de la santé mais nous nous sommes toujours euh, débrouillés pour ñu ñu nekk sur le terrain. parce que nous seen ay activités. parce que dañuy bëgg mobiliser wu yàlla mm-hmm. ñoom honorable Marème Soda Ndiaye ñu indi seen oto mm-hmm. Abdourahmane Sow ñin ñi cotiser noonu la ñuy dajalee Ndioro Ndiaye Alioune ay dem dëmb ñëpp ay cotiser fi u kii abale fii donc kii abale dem nañ ba ñun ñoo dem équipé mat euh, fële Abbas Ndaw pendant ce temps ville de Dakar mu ngi réforce mu ngi réfectionner la ville de Dakar à huit cent millions di di peinture di taf yëngal alors que les hôpitaux de Dakar sont en souffrance pendant ce temps ñu ngi lay wax terre bu pareegul pendant ce temps ñu ngi lay wax BRT bu nekk en chantier pendant ce temps ñu ngi lay wax ay ay ay chantier yu inauguré hôpital yu ñu inauguré yu bees yoo xam ne day équipement u fi oxygène matagul hôpital yoo xam ne amuñu personnel nañu waxante dëgg hmm. santé buggul santé buggul mensonge te suñu santé la gis nga sénégalais yi ñoo war a jàngataat ci lii jël seen responsabilité individuelle ba pare les politiques aussi bàyyi sénégalais yi ñu jàpp en otage parce que bu ñu soxlaa sénégalais rek c'est parce que ils sont électeurs mm. il faut qu'il les ñu soxla sénégalais en tant qu'être humain il faut qu'ils soient des humains moment bi ñu toll nii moment waxante dëgg la ñu dajale suñu force yëpp mm-hmm. woo xalif yi woo généraux yi woo ñëpp ñu toog waxtaan parce que nekkul xëccoo mbii sombaloo lamb jaa ngi naan duñ ko arrêté acteur culturel yaa ngi naan duñ ko arrêté duñ ko arrêté te gis nga Covid ak pandémie dafa nekk loo xam bu ñëwee ñëpp lay nërmeel lii nag amaguñ vaccin yu doy mooy mm-hmm. waxtaan ak sensibilisation jël mesure barrières yi xool nu ñuy waxtaanee nu ñuy sensibiliser nit ñi ba nga xam ne mesure ci jël day nekk benn mesure consensuelle boo xam ne du jur li mu fi juróon ci événement mois de mars yi nga xam ni tous les sénégalais voulaient se libérer. Hmm. parce que 5 pour cent de notre économie rek la fi état bi contrôlé 95 pour cent ñooy xëy di taaba taaba. Hmm. boo bëggee tëj sénégalais sénégalais amuñu fu ñu dëkk. yow tu n'as pas assez d'habitat social nit ñi ñu ngi ci mbedd bi. te insécurité bi mu ngi ci mbedd bi ñu ñi lekk ñu ñu boo ci bëggee teg tëj leen day am problème nañu waxtaan nañu waxante dëgg. Hmm. opposition bi teg li li nekk ci seen kanam ñee teg li nekk ci seen kanam ñu jiital santé bi. ñu waxtaan te professeur Moussa Seydi Abdoulaye Bousso ñoom su sàmb ñu indiwaat leen devant les sénégalais ñu nekk ak équipe scientifique bi le ministère de la santé coopéré affaire bi du mburum combat du mburum xeex du tontunte parce que un ministère politique buy tont ay scientifique yoo seen liggéey mooy la santé c'est sauvé donc il faut que ñu waxante dëgg. il faut une bonne stratégie de communication et que le président de la République jël l'affaire en main. Hmm. parce que moment ñu toll nii lu jaaxal Israël jaaxal Inde jaaxal ñëpp donc yow mi nga xam ne dëkk boo xam ne da ngay tàllal loxo. yaa war a gën a mën jël say matuwaay. Mhm. jërëjëf Abou Diallo lépp ci fagaru la ñu lay gërëm bu baax a baax yow yaay chargé organisation bu COS M23 bokk itam ci ñuy samp REVOCAP di réseau des volontaires communautaires en appui au personnel de santé ñu ngi lay gërëm bu baax a baax yokk ñaax ñëpp ci fagaru.